non man jàpp ma jàpp ma wax naa ko keroog que man Sorano si Sorano moo taxoon mu année jàppoon ba mel ni bul ko bàyyet loolu moom idée Sorano mais du woon ay feesal wala ay dem ay grand théâtre ak yooyu quoi mais est-ce que tamit euh, bon parce que bon logique là, hein, dem ba fi Tolo, toll talent bi dem ba fi Tolo, toll public bi grand théâtre 1800 places lay def et pour cher tey gëm nañu que tey bu fa dem ba woote woon grand théâtre dafay fees loolu gëm nañ ko. waaw loolu man werante ma ko bañ a ko bi ñu may na ba pare conférence ma fees na ba pare loolu jarul werante sax ay dina fees ak que toogu ma sax may xalaat ak yooyu sànq damay waxtaan sama benn sama oto mu naan ma. mais yow looy xaqataay nii boobu ay la mu ne looy xaqataay nii yow doo stressé ma ne ko noo wax dëgg yàlla stressé wu ma rek restaurant moom dama koy jàll dama koy jàll ndànk demaat feneen quoi donc du sama problème quoi loolu du sama problème ay Sorano ak yooyu juste rek musique laay def dama ñëw pour def musique pour woy musique nit ñi kontaan mais du woon xalaatuma sax ay non dina fees ak yooyu yooyu su ma su ma ko defoon su ma defoon tey mu de mu yàlla dogal 30 personnes kese nekk fii damay sant yàlla te woyal 30 personnes yi fi nekk. donc du pour affaire bu kaay musique laay def et je pense que loolu nag la Sénégalais yi bëgg di gis donc ma defal leen loolu. diggante Demba Guissé ak Baba di mal Euh, dañu gis ne que Baaba am na ay yu ko daan yu ko daan dar la plupart ku ci mel ni Ahmed Maal rakkam ku ci mel ni Ousmane Gange ñoo ñëpp di way ci langue pulaar mais dañu gis ni cohabitation bi mu am ak yow ci wàllu musique amoo ko ak benn jeune chanteur pulaar. waaw loolu nag peut-être euh, être Baaba Maal xam nga ku mu rek am na tax mu téye la te it man euh, ku ne xam na ni ci ay woyam laa jànge ay woy bu ma nekkee xale it xam na nag du ma artiste bu xam na lu baax a baax a baax euh, lu mu def woo ma lu may waaj a def déggante ak moom léegi nii moom laa dégganteel avant ngeen di ñëw donc nëbbantuwuñ dara ci côté musique ah eh suma suma suma suma papa la suma xarit la peut-être am na sax yoo xam ne peut bëgguma ko wax fii nii mais après peut après yéen di ngeen ko découvrir bu Sorano jeexee ci programme bi ak Baaba Maal quoi peut-être du ma ko wax fii nii mais après laa ko wax bu affaire bi jeexee peut-être it di ngeen am peut lu ngeen si gis li ngeen remarqué et tout xam naa leen di xaar rek après da ngeen comprendre quoi. Demba ak les jeunes talents ku ne xam na ni ku xew les jeunes talents dañ lay wuy si en commençant par Wally Seck Pape Diouf Sidi Diop El Hadj Keita est tey am na ñoom cohabitation bu war a mën a tax mu invité leen ci kaw seenam wala est tey mën nañ leen fi xaar ñoom seen président ci kaw seen dem am na ñu ma ci invité mais nag defuma ni El Hadj Keita defoon na invité àddina bi yëpp ku nekk ma woo dañu waxante dëgg yow xam nga li may wax euh, artiste aussi buy xewle ay invité quelque rek parce que boo naree invité sa xarit yëpp bu yàggee doo way waxante dëgg ah El Hadj Keita peut euh, une fois moo nekk muy organiser peut-être xamu amu ci woon boobu expérience mais wax dëgg yàlla ku def sa mbir bëgg nga woyal ko sa bopp ba mu rafet nit ñi xam ni kat lii taxoon nga def ko quelque ñi nga amanteel jàmm nga woo leen beneen anne bu amee nga woo ñeneen ñi nga woo ñi nga xam te ne soo leen a woo noonu lañ koy organiser man chaque année ñi ma xam bari na trop mais damaa woo quelque am na ñu ma invité woon première année yi ren dama ne non bàyyil ma invité damay changé chaque année su ma invité ñii ma invité ñii noonu noonu la affaire demee yaa dégg ok xam nga parce que aussi nag euh, boo xoolee am na artistes yoo xam te ne bu ñu defee seen programme ba pare dañu dañu dañu dañu am problème mu woy taxaw di xaar nit ki way xam nga bu paree mu jël dix minutes pare joxaat keneen jël dix minutes bu yàggee après doo après yow li taxoon nga woote même public bi sax dañ naan waa mais tam vraiment ki lañ soxla tu comprends man nag damay def chaque année rek ma yemale les invités ñu ñëw ñu doo ñu pare xam keneen ku ñëw nag te fekk invité wu ma la woon sax boo ñëwee ma jox li micro te xam ne que peut être ni que yëg-yëg ak bëgg moo tax nga déplacé ñëw mais quand même. Euh, a programme ku ko def mënoo satisfaire ñëpp mënoo invité artistes yëpp da ngay invité rek quelque ñi ñëw bu beneen yoon tee nga invité ñeneen ñi ñëw loolu mooy affaire bu ko defee ñu partagé ko kaay amul solo. sama laaj bu mujj ginnaaw yaa ngi dem relation euh, dem ba gisee ak yaa euh, ak Pendo dëgg la bokk ngeen ah loolu kenn waxatu ko mais dañu gis benn rapproche bu garaaw sa diggante ak moom parce que keroog wax na sax ba xaalu ne. Euh, ku ma bëgg a laal na nga na nga laal dem ba te sax lu ma seetaan kenn di ko laal lan lan moo leen boole dëgg-dëgg ginnaaw bokk ndey. Penda ñu bokk ndey ak bàyyi te mbokk ndey koy jur donc euh, ku ne xam na ni suma xarit la ñoo dépp mu ñu nekk euh, xale ñooy defandoo yu nekk en plus ma topp ci moom e moom donc weesu nañ sax peut-être ni mën naa ni bokk aar bi nii wala bokk ndey ak baay kese quoi mais moom mën naa ne. boo waxee ci man dara tey dal sa kaw da lay song moom sax des fois sax ma maa koy maa koy sax nëbb nëbb la affaire ak yooyu quoi parce que aussi nit nag noonu lay mel ak ak ak ak mu bokkal ndax nag lu mu metti metti metti metti metti yéen bokk benn deret bokk ndey bokk benn baay donc et c'est très normal et je pense que it mag ak euh, mag ak rakk yu bare bare bari noonu la demee. bon juste moo koy ñaanal rek ah, moom suma xarit la quoi d'ailleurs am na yu mu préparé lii xam naa dañoo gis léegi salle bi ndax moom ku ne xam na ni lu ma wootee mu ñëw def ci à 200 pour cent donc nañ ko xaar Pendo ci kaw scène bi aussi ñu xool am yeneen surprise yu amaat aussi yoo xamante ni yéen di nga ko gis internet bi xam nga yéen da ngeen a baax te it des fois ñu sikki leen naan ñoo gars yi internet yaay di xam waaye wax dëgg yàlla nag bu fekkee dëgg rek a neex yéen a wane gars yi ah yéen a wane gars yi te wax dëgg yàlla. Euh, déplacé ngeen ñëw bàyyi seen lépp ñëw dama leen di remercier ndax ñu baax ngeen li ngeen def ni yombul yàlla na yàlla jàppale. jaajëf <laughs> merci beaucoup. nuyu na. fay naa la. la. man Sista Diza. tey nga ñëw tey ci soirée bi nga xam ne Demba Guissé tey moom la koy def tey di célébrer anniversaire am mën nañu xam exactement teewaay bi. en fait Demba dafa nekk koo xam ne dafa bokk ci man en fait nekk na tamit sama góor ju baax parce que tout le temps. daf may bëgg di ma invité fu muy répété mooy fii Padois Cabana tout le temps damay dem di suivre affaire yi mu xam ne dafa nice trop si la ma ne comme ko da ngay woy sama rakk nga léegi bëgg naa la invité nga mun fa def li nga mën gars yi mun laa xam ràññee la loolu moo tax ma gën a sawar te dem ba moom nekk na koo xam ne ni que frère la ci man su ma invité damay gën a mën a sawar gën a mën a ñëw fii moo tax daal def naa li ma mën daal. kon tey mën nañ la xaar ci ko scène bi ak lu doy waar. non yéeg naa ba pare def naa. première partie. yéeg naa ba pare def naa daal li ma mën mais son bi daal affaire u mbëggeel la te en plus pendoo laa ko may muy petite sœur moom laa may son bi waaw comme. mën nga ci mën nga ci ñamal tuuti. ah dafa ne baby love baby love am na bu ne am na love maanaam. ànd bu ne waxuma ko comme couple rek maanaam tey mun naa la bëgg en tant que frère loolu moo tax ma ne am na bu ne am na loof ma ñoo dugal ci genre kii bambara mooy ité bi mu fee nte bi fee mbeñoo feele baby I love you loolu laa ci doon wax wax naa ci daal tamit lu bëri am na lu bëri daal lu mu ëmb. daal na la Sénégalais bàyyi xel. waaw waaw loolu daa bëgg loolu moo gën a tax tamit ma gën a sawar a ñëw damaa bëgg ñu bàyyi ma xel bu baax parce waaw maa ngi ñëw seen kaw ñu may fekk ci yoon bi ñoom ñëpp lay def. <laughs> merci beaucoup. ok de rien. ngi lay ziar. maa buur sama xarit sama mag euh, di rafetlu seen teewaay ci bésu a gise bii ndax euh, Demba dafa nekk koo xamante ni day xaritu ñëpp man waykatu diine laa waaye day sama xarit moo tax ma dagg sama yite yëpp ñëw. Demba ku disponible la nekk na nit koo xamante ni euh, loo ko defloo ci àdduna da koy def du xool ndax lii dina ko dina ko arrangé wala du ko arrangé mais da koy def te yàlla tax looloo tax ñu fonk ko muy sama xarit nekk koo xamante ni vraiment su may wax ci moom naan wu yokk mar la di nuyu nag sa caméraman bi nga xamante ni li tax ma bëgg ko mooy Cheikh Béthio sama sëriñ da koo bëggoon moom mii daan daan jëflante ak mu ay teraanga yoo xamante dama ci daan teg sama bët mu doon ànd ak sama xarit sama jëwrin jëwrin Moustapha Moustapha Thioune le journaliste du Cheikh vraiment buur sama xol dafa sedd bi ma leen gisee daa lu bëree bëri lu ma fàttaliwaat sama xol sedd na trop vraiment jërë ngeen jëf jërëjëf. jaajëf jërëjëf jërëjëf. Baboulaye si saxa bana chéri Maguette Diouf laa koy weel Maguette Diouf moom laay wayal bitil ma jigéen mbar màgget ay ay ay ay ay ci eh. ci binta

ko baay soxna jaara jaara soxna jaara jaara soxna jaara maam jaara kenn du mel ni maam jaara soxna jaara mas naa ab seen mi di boobu de bëgg a tàngal kafe fegal jaara jaara soxna jaara jaara soxna jaara maam jaara kenn du mel ni maam jaara ndaamal ndaamal jaara suñu Usmaan yaay noorine bi mu sance daara gaañi mas naa jël ab semin di xaga ndeke boobu de bëgg a tàngal kafe bëgga sëriñam di baayu Cheikh Awa Balla wi baayu Modou Awa Balla yaay aji masque yi ba yow aji masque yi yaay mu Ablaye waaye rajo maas genge sabaka leen moo tax mi ki lay ana bay faal ana bay faal ana bay faal ana bay faal

te jaamu laawu sunu buur bi sëgëm ki ñu gën dem na nabi bilay yaali kumba fal njaay gawlo mi ci gaddaay wooma woona la ñu dem galam gay saloon je asunoo balla ku ko nay laace tay ba sare mooy baayam aji may na yaayam jee sare sama waajaa ngi ni ngalam jee sare noo balla tay ba sare mooy baayam may na gey yaayam jaara la bokkal baayi ab sama bo sama waajaa ngi ni ngalam ku julit naga manu, jamu laawu sunu burbi. Kufi julit naga manu, jamu laawu sunu burbi. bi sama wajang ini dalam ngalam Tiba saloon xumay maamam je asu séeri lay dem way ko wone ko je asu yaayu seexi ey way ko wone ko je asu asu yaayu seexi ey way ko wone ko ab sama bonga bo te asu yaayu seex ku ko xamul nay laace ku ci yi del laace doo përëm doo xanjar doo xaalis royu kay nga je asu sama waaja gi galam ngay zaloon ana jaara sare

ya yu seri ya yu seri ngalin ngalin ngalin bangi moy yu seri kuy ma ba jogal tu jey asu yu seri ku ko xamul nay goru kul no noobal nga je asu gale yaabe je asu sama waja galam ngay salo suufa suufa suuf tey ma wayal sama yaayi ey way ko woni ko yaayi yaay penda gey yaayi musa faa joobay sa sama yaayi sunu yaay di aramin fari kere ma cengel nde baay sam jaba mi ci Podor duudu bi ci ndand yaay mi ci ceem birandi kek maye sa ñaan sama yaay yal na gudd fan ku ne amin dangay eh, gudd fan sama yaay yal na gudd fan sendo yal na gudd fan ku ne amin dangay gudd fan sunu yaay yal na gudd fan faama gey sa yaay ana gey ñaña gey sama yaayi yal na gudd fan ku ne amin da gudd fan awa sama yaayi yaa mben sama yaay la ka sama yaay la xadi lawbe sama yaay la adi jaara sama yaay la Kudufan, fan suñu yaay yal na gudd sama yaay yal na gudd fan suñu yaay yal na gudd kuni amin dagay kudufan, fan suñu yaay yal na gudd baba jarama jaarama sama papa jarama baba jaarama sama papa jarama ay se mooy sa yaay ñu dem dalam ngay saloon loo xamul nay kumba jaw nga bokkal yaayi yaayi ko wone ko wone Pa Moussa mooy ey way ko wone ko Demba la bokkal yaayi ey way ko wone ko Samba Ayse la bokkal yaayi beddo way ko wone ko Kumba Jaw nga ey way ko wone ko wone ku xamul nay laaje ku ci yi del laaje eh, do përëm do xanjar doo xaalis royu kay nga si Malik sama waja ngi ni galam ngay zalor daba soxo nduur yal na gudd fan soxo nduur yal na gudd fan fan Isma Jongu aram misu yal na gudd fan ani aja sama ñeeño ñeeño sama ñeeño aja sama ñeeño ndey binta mooy sa yaayi aja sama ñeeño aja sama ñeeño mi ne yalam jay lala ah, ah. woma on Allah ngalam ngay zallon woma on Allah ngalam ngay zallon woma on Allah won Allah won Allah won Allah woma on Allah ngalam ngay zallon woma on Allah won Allah won Allah won Allah bayu Muhammad لبيك اللور هو ما وانا على وانا على وانا على وانا على هو ما وانا على ده لبيك اللور انا باي فالي باي فالي انا باي فالي في بيفلو خوتك واي انا باي فالي ma xool ca kaw e mbir feeñ na Touba ku ko feeñal seera du borom Chine Happy birthday to you Chine Pape Darame Happy birthday to you Fatima chaque année eh? dina ñew yi lay def lolu deug la Fatima Ndiaye madame gisse ci li sété seetee garmi yaa ci yow Fatima dama ne yippin mak ci Demba gisse lay wuy and bu yàgg deug lay doon lolu deug la sàkket xeer ba cay da da daru pendo sama rakk jàngoog lu yàgg dëgg lay doon Fatima ne mana tukulu ali rasin buur gi di ne mana ila ila tukulu ne mana ila ila buur gi di ne mana lam tooro lam tooro wi dem ne mana jili kolle wi dem Sidi Sidi Sidi waaw ma ñëw ah sakane yaa doon dagg gata bi sakane yaa doon dagg gata bi tey di ko dagg ndax Fatima ngi fii donc ñu dagg ko vite fait Amar Samb kaay jërëjëf yow mënta ñàkk ndax sunu papa nga sunu xarit nga Baye Abdou Samb Baye Tina père Amar ñu dagg gata bi rapidement enchaîné sama yaay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

mësul dellu di gërëm bu baax moo di gërëm di sant bu baax waa brioche dorée ñoom ñi nga xamante ni ñoo defar gato bi indil ko Demba jërëjëf jërëjëf merci Demba madame merci Sorano jërëjëf may leen loxo tey bu baax a baax merci beaucoup merci ñu yàgg ko féete merci waaw nii la merci beaucoup Brioche Doré di gërëm di sant Elimane Lam sant bu baax également ñi jàppale Demba Guissé opérateur économique maa ngi woo ci morceau bi Père Amar Samb waaw